salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw ba nu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa salaam di sant Serigne Touba bu baax a baax di santaat Serigne Touba ci tawféex gi mu nu defal ban ànd ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne bu Mbacke moom Serigne Touba ci wàccaayu màggaluk xasida yi di am le 25 décembre 2016 fii ci Touba jaalibatul maraqib nekk ci gox bu ñuy wax Aliya nun ñi nga xame ne Serigne bi defal na taw féexu boole nu ci mbooloo mi nga xamee ne ñoo féetewoo wàllu aménagement tey dox digg ak bis bi ñaari fan liggéey bi booy xool liggéey nañ quatre-vingt pour cent yàlla suñu borom it dogal na bu ndee wax aménagement ñu bari dañuy xalaat li amoon daaw ak lu ci dolleeku ren ren nag dafa mel ne Serigne Hamsatu moom Serigne bu daa dikkal boppam ci liggéey bi muy daaw bi mu waxee ne barab bii du pee na ko këruk xasida yi nga xamee ne boo doon xool li fi dugg ci lim ci wàllu koom ci liggéey bi nga xamee ne da cee jiital Cheikh Mouhamadou Moustapha Mouhamadan làmmiñ du ko mën a tudd muy clôture boo xamee ni bokk na ci barab yin mën a tudd ci Touba ndax ràññee nañ ci liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu clôture bu rafet ànd ak làmp yu rafet lépp ñu darajaale ko màggale ko xasida yi ak këruk xasida yi leneen li ci topp mooy boo duggee ci biir kees gi da fi fekk ay barab yeeslukaay muy ay wanag yoo xamee ne yu mucc ayib la néew na yaatuwaayu barab bu ni toll di quinze mille mètres nga fekk fi liggéey bu ni mel kon euh, foofa la ñuy njëkk a tàmbalee ci sëriñ bi mu jiitu ci wàllu liggéeyu aménagement aménager loo xamee ne boo koy xool ci liñ ci dolli daanaka kaasu attaaya la ci géej ci géej kon nag loola ñu ngi ciy sant yàlla waaye di ci sant sëriñ bi di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal aw fanam moom sëriñ Amsatu Mbàkke wéral ay cëram te yàgg koo jiital muy jëwriñu kuréelu xasida yi nekk ci Sénégal ak ci adduna yépp leneen li ci topp mooy mbooloo mi nga xamee ne dana ñëw ci barab bi koy defee barab bi mën na contenir lu toll ci quarante mille personnes ba ci cinquante mille personnes te nun liñ ci aménagé. cinq mille mètres carrés képp ci quinze mille mètres kon mel na ne barab bi doxagun ba tolloog dayob liggéey bi fi mu toll ñuy ñaan ñëpp ñaanal nu at yi ci sunu kanam sunu man-man ak sunuy pexe ak sunuy lijjanti mën a yegg ci mën a satisfaire li barab bi yittewoo waaye nag liggéey bi moom fii ak li dox ci bis bi li ci ëpp def nan ko gan yi rek lañuy ñuy xaar ak mbokki taalibe yi. ñuy gën a santaat nag Serigne Touba ci loo xamee ne bokk na ci li ma yéem ci bis bi nga xamee ni moom lañ dëgmal ndax nag dëgg la ni am Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou euh, jëwriñ la ci liggéeyub Sëñ Touba bi wëlbatiku waa Sénégal gépp àdduna sépp jiital ko mu nekk jëwriñu képp kuy yëngu ci wàllu xasida yi Sëñ Touba yi waaye bis bi ak dayob bis bi booy xool ni nga xamee ñi nga xamee ne ñoom la ko teg ci seen loxo muy sëñ Moustapha Mouhamadan sëñ Abo moom sëñ Cheikh Sey sëñ Cheikh Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi topp ci ñoom ñoom it macha allah des na leen may mention spéciale ndax ay weer ci ginnaaw ñi ngi waajal bis bi ñi ngi gàttandu bis bi def ko ab organisation boo xamee ne mel na ne bis bi nosu na nosu goo xamee ne euh, gis fi lu la réeral dana jafe muy ab liggéey boo xamee ne boo ñëwee nun ñi nga xamee ne ñoo nekk ci aménagement bi daanaka am na ñu ñu jiitu. ci wàllu ñi nga xame ne ñooy accueillir nit ñi ca fa oto yi tàmbalee jàddee fekk fa waa transport ñu yokk seen xayma euh, wut seen i parking yu dalal seen i oto am ñoo xamee ne danañ guider nit ñi nga xame ne danoo war a jëm ci bâche bi nga xamee ne ñoo aménagé loolu ñuy wax euh, aménagement de circulation ni ni ni nit ñi euh, ñëwee ci kër gi ba dugg ci këru xasida yi nga xamee ne des na leen teqale ni ko sëñ bi bëggee muy góor ñi ak jigéen ñi kenn ku ci nekk yoonu boppam. boo duggee ba ci biir këru xasida gi tamit da nga fi fekk ay jëmm yoo xamee ne nosu na nosu koo xamee ne kenn ku ci nekk ak fa fa nga war a jànge ak xasida ga nga war a jàng ak nanu koy sàppee mu mel ne ñuy waajal waxtu yu juróom ak ñeneen ñi nga xamee ne. dañuy nekk ci soxla nit ñi moo xam ci wàllu bépp teranga koo xamee ne war naa fekk nit fa mu nekk ngir woyofal aw nekkinam ak ñi nga xamee ne ay kilifa lan ñu war leen a ràññeek mbooloo meeg taalibe yi yoon wan leen war a jaarale ak fan leen war a dalal mel na ne daal liggéey bi képp koo xamee ne eh, suñ borom dimbale na la ci wàllu xel te nga xamee ne ci tuubaa nga ne sëriñ bi gannaaw ba mu la ko ubbilee ñoom ñëpp bokk nañ ci yéene bokk nañ ci pas-pas jugunu tamit ci di daje ay réunion jugunu ci di sottante xalaat ngir bëgg koo amale noo xamee ne dana dëppoog nu ko sëñ Touba bëggee ndax sëriñ bi moom dakku ci lenn lu dul sëriñ Tuubaa dàkk wutu ci lenn nit lu dul sëriñ Tuubaa bëgg nag lépp lu ciy wàcc mu bokk ko lépp lu sëriñ Tuubaa moom lu sëriñ Tuubaa am kon nag noonu ko sëriñ bi bëggee na leen wóog cëng ni ñi jiitu nose nan ko nos nose nan ko noo xamee ne sama làmmiñ mënu ko tudd waaye bàyyiwul dara commission boo xamee ne am mbooloo dana ko dana ko nos ngir mu dolli ko ci liggéey bi ngir liggéey bi rafet wala mu sell jàpp leen ni commission yooyu Euh, am na nos nan ko créer nan ko teg nan ko man nag tuuti naa ci mën a wax ci turu benn commission li nga xamee ne maanaam moom laa féetewoo mooy aménagement waaye nag ñi nga xamee ne féete woon nañ ci yeneen commission yi xam naa waxtu wi ak temps bi danu ko dut may ba kenn ku ci nekk mën a jël kàddu waaye na leen woog cee nga ne ñoo ma gën a nos ab liggéey ñoo ma gën a organiser wula ab liggéey ñoo ma gën a am yéene ci seen ub liggéey ba tax na ragal naa ne ak te wala faay du am ci seen liggéey kon na ñëpp ñëw ci bismillahi rahmaani rahim egsi ci alhamdulilahi rabbil alamin ñibbi nag yóbbaale ngërëmal sëñ Tuubaa barkib sëñ Tuubaa xéewali sëñ Tuubaa ci jàmm ak salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullah aouzu billah bismillah inni wàlli yàlla maa tawfiqe ila billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi xam ngeen ne tey ji ñu ngi fii jaalibatu maraaxib ngir war a waajal màggalu xaside yi ñu jotaay bi xam ne bis bi bis la boo xam ne bu am programme la waaye bis buñ waaj la ngir taxawaay yu am solo yoo xam ne mbokki taalibe yi diirub mën naa ne bañ gàmmoo ba tey ñu ngi ci ngir bëgg liggéey bi mu cayib xam ngeen ne nag bu ñu waxee bisu xasida moom lu yaatu woon la ci àdduna bépp waxuma la Sénégal waaye fenn fa ne ngi ko fay def waaye bu ñu defee bis xasida ba am at dañuy def bis boo xam ne dañuy wax màggalu xasida yi màggalu xasida yi nag bu ñu ko dee wax kull ku doon yëngu ci xasida ak bis yu mënoon na am ñun ñëpp dañuy dajawaat fii fi jaalibatu maraaxib ngir wéyal liggéey boobu liggéey boobu nag ni ñu ko waxee dañ ko àndandoo ak mbooleem adduna bépp ñii nga xam ne ñi ngi tey gën a jege ñi ngi koy def fii jaalibatu waaye ci bitim réew ñenn ñu ne ña ko fay def di ko àndoo ak ñun ndax magalu xasida la ñu wax kon bu amee bisam bis bi bu jotee kenn ku ci nekk fu ne dana ko fa màggale. waaye nag ñu soxla ci disposition boo xam ne bu am solo la moom am kuréel goo xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi ngir ñu koy saytu mel na ne jamono yëpp ñu ngi koy def ay daje. ngir tënk bis ba nga xamante ni bii daal dana dëppoo ak ni nga xam ne la ko sëriñ bi bëggee loolu nag def nañ ci léegi bi am solo ñun ñi nga xam nag lañ dénk wàllu culturel bi incha allah bu ñu xëyee euh, suba ci la ñu war a tàmbali liggéey bi ndax liggéey bi ren dafa soppiku ñaari fan lañu ñu koy def xam ne njàngam mi bu ñu xëyee danañ ko tàmbali àndoo ak njàngam durus mi ñu yendoo ko faraane ko bu ñu xëyee ci la 25 bi ñu yendawaat ko bañ bañ julli gee incha allah ci la liggéey bi door a jeex loolu nag di liggéey bu am solo boo xamante ne bi at mu nekk noonu lañ ko taxawee waaye du ñu am ci lool rek xam ngeen ne fu ñu tuddee bi su xasida ah, daal di tudd alxuraan te daaw xam ngeen ne ay kaamil yu bëree baree bare yàlla dogal na wàccee nañ ko ci ren jii defaat nañ ci ay waajtaay yoo xam ne bi bis bu zar na agsi yëgal nañ ko ay daara yu bëri ñu ngi ci jàng suba it bu ñu xëyee am na base boo xam ne aménagé nañ lañ ko pour ñoom kese alxuraan rek lañ fay def incha allah fas nañ ko yéene àndandoo ak ñoom ngir ay lim yu takkoo takku yoo xam ne fas nañ ko yéene def ci bis bi. jotaay yu nag bis bi ak sababu dëgg-dëgg bis bi it at mu nekk ma dellusiwaat ci ngir li xamle ne daayira bu ñu wax Muxaddamatul Xidma ñoom ñu amoon xememteefu def bis bi ah, yàlla dogal nag ñu di ko def ba agsi tey jii ci kër sëriñ Amsatu gi ngir di ko àndandoo ak moom loolee nag moo tax ñu di ñu koy tàmbali waaye mu dem a dem ba mujj nag bis bi tey jii ah, ñu koy màggalu xaside yi nga xam ne bisub ñëpp ñëpp ko bokk ñëpp a ko ànd di ko def waaye di ko defee nag fii ci ki nga xam ne mooy sëriñ Amsatu kenn ku nekk xam pas-pasam ak taxawaayam muy jëwriñu xaside yi lépp mu jëmale ko alxuraan ak xaside ak ay daara. ndax ñu baree bari xañ na ñu dee tudd sëriñ bi dañuy rek tudd xasiide waaye sëriñ bi ab liggéeyam bépp da koo jëmale ci liggéeyal yàlla ndax fenn fu nekk ma nga fa la ay daara guddi ajuma yu nekk mi ngi dajale mbokki taalibe yi ñu def ay solo ala nabi di jàng ay xasiida di jàng alxuraan loolu nag taxawaay la yu am solo yoo xamante ne bii moom mii koy def war nañ waxtu wu nekk di ko ñaaral xam ne fu ay nekk tey di am jàmm day wala nga fa nekk gisoo fitna gisoo dara alxuraan ak xasida yi nga xamante ne waxtu wu nekk ñi ngi koy def ci àdduna bi moo ar li nga xamante ne bii mooy sun réew mi ñu nekk ak mboolem ñun ñi nga xamante ne yëpp ñu ngi safoo liggéey bu am solo boobu kon nag yàlla nañ ci daje ak ngërëmul sëriñ bi liñ ci def lépp di yàlla ba gis yàlla bañ ci gis suñu bopp lépp yàlla na ay tawfeex waaye nu ñaanal ci nag way dawlu yëpp foo ñu man a nekk suñu borom tàbbaleen ci àjjana yu gën a kawete jot leen ci yi nga xamante ni moom la ñuy dund fii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh